salaamaaleykum mbokku internet du Sénégal 7 ñoo ngi leen di nuyu tey ñu ngi fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu am gan di euh, professeur Mamadou Sy Albert ñu ngi lay nuyu doyen. maa ngi lay fay alors euh, tey ñuy waxtaanee meurtre yi nga xam ni ñu ngi koy nemmeeku te mu ngi bëgg a jéggi dayoo ci Sénégal yow euh, ban jàngat nga ci am. waaw li ni nga ko waxee daal euh, noonu la meurtre yi mu ngi commencé bari muy am ci biir Ndakaaru muy am ci biir réew mi ci région yi luñ ci gën a ràññee mooy que en général jigéen ñi ñooy nekk victime muy jigéen xale wala jigéen femme mariée wala femme bu bu sëyul euh, loolu li muy wone mooy que euh, ba tey ji crise dafa am ci Sénégal crise euh, nag buñ koy wax dafa ëmb lu lu bari crise économique am na crise nit ñi seen amatuñu doole ñu ñu bari du amuñu liggéey boo gisee ci jigéen ñi ñuy liggéey bariwul en général ci petit commerce la ñu nekk xale yi aussi amuñu amuñu xëy mag yi sax tey ji am na société yu bëri ñu commencé ñu am ay problème ay jafe-jafe donc crise économique bi am na euh, loolu euh, bàyyiwul xale bàyyul mag bàyyul jigéen wante lu ñu gën a xool ci crise bi crise bi dafa am effet dafa am impact am na nu muy euh, laale askan bi ci ñan la gën a laal mooy ñi nga xam ne amuñu doole waaw ci am ku amul doole ci Sénégal tey jii tey jii ku njëkk bu ñuy seet mooy jigéen ak xale ñooñu ñooy yi nga xam ne amuñu doole am amuñu en tout cas emploi amuñu xaalis lu ci lu ci gën a bari dañuy dépendre ci baay wala ci ci jëkkër wala ci ci mag donc dépendance boobu euh, su amee rek ci biir euh, famille bi de famille bi mooy lu ñuy wax euh, délitement des liens cest di diggante nit ñi day yàqu soo amul pratiquement nekkatoo dara soo sëyul aussi nekkatoo dara soo nekkee xale amoo liggéey doo dara jigéen bi aussi sooy sëy ti fekk fi ngay sëy amu doole amu fa bon da ngay gën a euh, fragile donc loolu moo tax lien yi defe naa kris bi am na gaa wante lu gën a jaaxal nit ñi mooy lien yi euh, diggante nit ñi day gën a yàqu diggante bu yàqee muy jigéen ak euh, jab ak jëkkëram jigéen ak doomam jigéen ak waajuram liens yooyu ñooy tas et loolu moo tax euh, violence bi ni muy amee toujours ci biir famille bii la ci cellule familiale bi euh, loolu loolu la ñu gën a ràññ maintenant am na beneen violence aussi bi nga xam ne mu ngi ci système éducatif bi boobu keroog dégg nga que am na benn enseignant dañ dégg élève am moo ko dóor te loolu amoon na fii même ci université de Dakar am na ay recteurs yu ñu séquestré am na doyen si kese am na enseignant sax yu ñu dóor ci université yi muy pii muy ndar wala feneen donc violence bi muy gën a law ci biir famille bi ak ci biir système éducatif bi c'est-à-dire que euh, ak mbedd mi donc sooy analyser loolu mooy que euh, espace public yi espace socio-éducatif yi ñoo ñoo gën a am gën a sentir crise bi te violence bi foofu la gën a ràññee euh, donc loolu Euh, c'est vrai que situation bu bu doy waar la parce que sénégalais quand neexul ba neexul lu mu am euh, famille la mooy mooy suñu base société te famille bi lu ko laal laal société bi. Euh, mais violence yooyu nga xam ni moom la ñu nemmeeku ba mu dem bay aboutir ci ay ay meurtre yan raison sociologique mooy expliquer loolu. bon raison sociologique bi mooy que ci biir famille yi. famille yi dañuy seen dund neexul amuñu am am bi moo mooy mooy wàññeeku te am am bu wàññee te yow mënutoo am euh, ndékki mënutoo am añ mënutoo am reer tension sociale lay indi même bu dul pour pour rien c'est-à-dire que même soo yeewoo nga am vingt ans wala trente cinq ans wala nga nekk jigéen ngay sëy yow mënoo sax lijjanti cent francs wala cinq cent francs mais loolu dafay am conséquence psychologique c'est-à-dire doo gëmati sa bon euh, sa bopp soo soo toogee par exemple lu yàgg ay un an deux ans dix ans nga nekk ci ngay dund loolu dafay daf lay conditionné conditionnement économique la ak conditionnement social mooy tax nit ñi tension bi mooy mooy ëpp cest di dire que amatul sax euh, possibilité ñu toog waxtaan wala discuter parce que du ñu am solution pour régler seen problème euh, jafe-jafe yu ñu donc psychologiquement Euh, muy jëkkër bi wala muy mag bi wala muy euh, papa ji wala muy yaay ji dañuy dund ci tension permanente duñu amati possibilité intelligence discuter pour pour am pour régler seen problème euh, problème yi moo moo leen di mujj dominer et en général problème bu la dominer toujours sa réaction réaction disons booy réagir doo ko contrôler doo am maîtrise de contrôle parce que sa situation dafay gën a xat et soo xoolee aussi bon ci société bi muy am euh, muy euh, euh, ci ci région de Dakar wala à l'intérieur lu ci gën a bari am na surpopulation da ngay gis famille bi nga xam ne quinze vingt personnes fekk kenn mooy liggéey te kooku li muy liggéey mënul dundul waa waa këram loolu day indi tension sociale maintenant lu ci gën a doy waar mooy que en général en général su amee tension ci euh, jëkkër ji wala ci ci mag euh, bu góor bi wala ci papa ji violence rek la ñuy utiliser ñoom loolu mooy seen arme dernier arme bi sa recours dernier recours bi mooy loolu mooy dóor mais dóor bi nag bon su fekkente ne yaa am na aussi environnement bi c'est-à-dire euh, ci ci ñu li ñu gën a seetlu boo xoolee télévision tey ji ki nga xam ne amul dara mën na dem ci télévision bi foofu lay toog suba ak ngoon ak guddi mais li muy seetaan mooy li muy seetaan mooy en général film violent la mais soo dëkkee ci loolu. est-ce que loolu tamit nekkuñu ni mondialisation bi la ak euh, internet bi moo mais mondialisation bi mooy loolu mooy loolu c'est que mondialisation bi du la indil liggéey mais lu mu lay indil mooy divertissement. parce que ay commerçant lañu ñoom internet bi commerce la télévision bi commerce la rajo bi tel euh, commerce la journaux yi commerce la dañuy commercialiser ñoom seen produit lan moo gën a jar mooy divertissement euh, muy musique bi muy euh, muy cinéma bi violence moo gën a jar ci àdduna bi c'est c'est une société de crise qui fait que bon violence soo koy soo koy jaay ñëpp ñoo koy jënd ak divertissement donc ça veut dire que euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci situation boobu dañ à la limite dañ leen di conditionné mënatuñu ba bon ki nga xam ne nag yàlla xiir na ko ci affaire télévision wala yàlla xiir ko ci drogue wala ci alcool mais dafay gën a yokk problème am e c'est ça qui fait que bon euh, tension yooyu yëpp euh, solution bi mooy violence et euh, defe naa Euh, loolu mooy euh, problème bu gën a rëy c'est-à-dire nit ki bu demee ba wóolatul euh, papam wóolatul yaayam wóolatul xalaatam moom doolem rek la wóolu mais kooku violence rek lay utiliser pour li mu mënti wut ci àdduna violence la koy utiliser su da day sàcc day day dóor day bon day du nangutu benn autorité donc vraiment am na violence boobu il faut ñu xool ne ñu xam ne que am na lu mu ëmb am na ah. hmm? ñu nemmeeku nii après euh, euh, Kédougou Sédhiou ñu dem Kédougou récemment bërki dem am na benn xale bu am 17 ans bu ñu ci agressé doon nangu téléphone mu bañ ñu ray ko bërki démb am na aussi benn femme boo nga xam ne 20 ans la am dañ ko ray ba noppi euh, dóor ko 64 coups de couteau loolu est-ce que nekkul ni vengeance lay expliquer ci ray yu mel non mooy mooy frustration mooy frustration frustration tey ji boo xoolee soo demee ba yow gëmatoo sa bopp soo demee ba gëmatoo gëmatoo sa bopp que li ngay am comme problème yow solution violence rek nga am loolu moo tax que doo maîtrise sa bopp ah, amul maîtrise bon euh, ça, ça veut que en tout cas pour ñu pour ñu gën a comprendre li ma bugg wax mooy que nit ki dafay nekk comme xar animal la soo amatul sa intelligence ak sa maîtrise bopp rek yaa ngi ci animosité xar bi ak euh, euh, euh, bétail bi nu mu réagir noonu ngay réagir parce que moomatoo sa bopp et loolu su su jotee nit ki ba solution bi moo doon lu gënoon mooy mu am ki muy waxtaanal ci biir famille am mais soo amatul bàyyi amatoo yaay amatoo dë sa dëkkandoo fa faale wala yow faale woo ko donc da ngay gën a nekk seul solitude bi def naa solitude bi moo moo tax moo tax ñu gën a am problème et solitude bi euh, mooy expliquer violence sexuelle parce que da ngay da da yaa ngi ci solitude gën a gën a nekk seul gën a isolé wu mais yow da ngay da ngay seet ki nga xam ne mën nga ko agresser seul loolu mooy sentiment d'agressivité du ñu attaqué mu quelqu'un ci public dañu xaar ba ba nga wéet ba ñu xam nañ ko yow ñoo la ëpp doole xam nañ ko ñoom euh, am nañu euh, mën nañ la bett euh, donc mooy isolement isolement bi mooy tax que en général muy agression sexuelle muy agression physique muy sàcc ci ci ci mbedd yi solitude boobu mooy créer benn situation de conditionnement que yow doo wóolati kenn amatoo confiance ci sa famille amatoo confiance ci sa waajur amatoo confiance ci kenn yow fi nga am confiance daal mooy sa doole. est que tamit loolu kon euh, du du càggee na ñu beneen euh, système d'éducation boo xam ni parent yi dañu ko am ak seen ay doom. waaw éducation bi moom il faut ñu ñu seetaat ko parce que boo gisee ñun euh, sénégalais wala africain en général suñu force moo doon éducation. suñ suñu lépp lépp lépp lépp mu ngi doon mu ngi mu ngi mu wekku ci ci éducation muy xale bi muy muy euh, ñi nga xam ne ñu ngi sëy euh, muy mag yi ñun suñu base société mooy éducation loo mënti def dañ lay jox benn valeur bi nga xam ne da da ngay ànd ak moom ci loolu lañ lay yar ci ci loolu ngay màggee e système boobu euh, importance bi mu amoon mooy que nit ñi dañu nekkoon solidaire kaddu papa kaddu yaay kenn du ko fooye sa mag kaddam doo ko fooye donc système boobu defe naa il aussi que nit ñi dellu yaa ngi doon wax modernisation bi mais bu ñu toppee mooy individualisme ku commerçant mooy li mu intéressé mooy ku am liggéey ku am xaalis ki nga xam ne amal na ko njëriñ ku amul liggéey ku amul xaalis amatoo amaloo ko benn njëriñ donc commerce la ñuy def et soo suivre commerce boobu c'est sure et certain que fu ñu jëm bon du baax parce que ñi nga xam ne amuñu doole amuñu kattan mais du duñ ci génn mais ki nga xam ne am na moom dina am télévision dina am liggéey dina am lu mu dund et cetera et cetera donc solidarité boobu il faut ñu dellu foofu. nekk système éducatif bi aussi euh, tey ji dafa war a dellu en tout cas ci valeur africaine na naka la ñu fexe. ba suñu système moderne bi muy français bi muy anglais bi muy espagnol bi naka la ñuy fexe ba suñu valeurs yi dugg ci éducation def naa lool daal euh, lu lu war a mën na nekk solution mais beneen solution aussi mooy valeurs yi ah su soo gisee tey ji euh, les familles religieuses mais war nañu doy comme exemple tey ji muy euh, xale muy ndaw muy jigéen muy ku am xaalis ak amul xaalis mais ñu ñëpp ñu ngi seet euh, famille religieuse yi ni ñu tëddee loolu exemple la am na discipline am na valeur am am na respect des hiérarchies am amuñu tension politique wala tension sociale donc loolu modèle la euh, bu ñu war a jàng pour aussi système éducatif bi bon euh, suñu moytul daal crise bi day gën a law te plus muy gën a law mais plus lien yi nga xam ne amoon na diggante enseignant ak élève mais day day day rocceeku valeur yi aussi day day dem. Euh, euh, bu ñu nee dañuy violence dañuy agression ba noppi suivi de meurtre alors yow euh, bu fekkoonte ni da nga doon def benn analyse ban la yan ban jàng ban matuwaay la état bi nga waroon jël pour éradiquer fléau bi nga xam ni moom la ñu nemmee ko jamono jii waaw état état bi état Sénégal mooy que amuñu jumtuwaay. xam xam nga euh, par exemple euh, euh, boo xoolee gox yi situation familiale lu ñu nekkee pratiquement état bi amu fa amu fa nit ñi amuñu police amuñu gendarmerie amuñu militaire amuñu sax autorité politique amuñu sax service public et et loolu bon loolu musiba la c'est-à-dire bu demee Dakar di gën a yokk problème di gën a yokk te état bi taxawul ci sécurité nit ñi c'est sur et certain que insécurité bi day day gën a law maintenant beneen problème bu ñu xam bi nga xam ne solution la mooy que il faut ñu dellu par exemple ci éducation civique ah éducation civique am lu am solo mais beneen euh, éducation bi mooy assistance assistance psychologique c'est c'est pas normal que nga nekk établissement nga am huit cents élèves par exemple te amoo benn psychologue mais c'est pas normal c'est pas normal que nga nga regrouper huit cent personnes amul benn psychologue benn équipe de psychologue ñi nga xam ne ñu surveiller élèves yi dinañu surveiller enseignants dinañu surveiller administration mais problème yu bari c'est des problèmes psychologiques. donc mën nu jàpp ni kon ci yenn établissement yi nga xam ne ñooy jàngale dañ ci war waroon accompagner ak des sociologues. mais éducation dafa ànd ak psychologie. soo soo xoolee éducation ni muy démarrer euh, fii wala France wala ci euh, pays européen foo gis système éducatif day am système d'accompagnement psychologique psychologie dafa bokk ci éducation c'est c'est pas possible même que nga am par exemple ñaari doom ñetti doom te doom yooyu du ñu dem mukk pour seeti benn psychologue mais c'est c'est voilà loolu état bi mooy mooy rôle am ba am les cases de santé yi ñuy wax ni wala dispensaires yi wala hôpitaux yi mais dañoo am war am psychologue parce que psychologue mooy faj feebar psychologie mais médecin bi mënul faj psychologie loolu il faut que état bi jël jël jël conscience nga xam ne que santé dafa ëmb lu lu lu euh, psychologie éducation dafa ëmb psychologie même nos militaires même nos policiers est-ce que c'est normal que nga nekk ji dans ci benn benn benn euh, commissariat fekk policiers yi amuñu benn psychologue et c'est pas normal parce que policier bi am na arme policier mën na am problème psychologique pour problème mën na am problème social mais donc mais mais mais bien sûr par exemple un policier qui était avait des troubles psychologiques mais certainement su ñu amoon un psychologue mais dina leen teel a avertir mais loolu policier simple simple mënul mënul mënul accompagner policier au plan psychologique commissaire mënu ko euh, discipline la bon xam-xam la euh, donc dafa laaj que en tout cas ñu gën a bàyyi xel ci psychologie et même euh, pour li nga doon wax ci éducation africaine traditionnelle mais ñun dañu amoon psychologue maanaam la grand-mère wala le grand-père mais c'est de grands psychologues c'est de grands psychologues Euh, boo ñëwee nga wax xam na xam nañu nu ñuy waxee yow xam nañu nu ñuy xool ba génn la ci ci ci ci problème bi nga am amoon nañu benn approche psychologique ou benn approche psychosociale et culturelle mais mais loolu mais loolu xam-xam la. mais euh, dañu dañu bàyyi lu ñu moom te ñu dem ci li nga xam ne lii xamuñu ci dara cest sa dire système éducatif Euh, wala wala cellule familiale wala communauté de base mais dafa laaj organisation et ci suñu organisation defe naa c'est important quand même nit ñi xam ne que Sénégal am na ay ressources humaines am nañu de bons psychologues ah, am nañu de bons psychanalystes ah, am nañu université ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di former mais utiliser lu ñu leen ku ci am diplôme soit da ngay génn soit da ngay dem dans le privé donc système éducatif bi dafa war a euh, accompagner euh, système éducatif bi pour euh, seet des psychologues que ce soit sur le plan éducatif wala des psychologues pour gérer les troubles mentaux les troubles physiques bon loolu en tout cas suñ ko amul c'est sûr et certain fu ñu jëm du neex. mais justice justice lan mooy taxawaayam ci meurtre yi ñu nemmeeku nii lan mooy taxawaayam ci ki nga xam ni moo rey. non mais defe naa loolu moom loolu moom justice dafa war a jóg ci boppam ça ça ça dit que aussi euh, su fekkente ne ñu ngi ci benn société ñu ngi ci crise euh, population bi amul solution crise bi c'est-à-dire que suñu population bi amul solution pour ku nekk am liggéey ku nekk am fi nga dëkk ku nekk am li nga li nga bëgg loolu amuñu àgguñu foofu mais su fekkente ne am na ñi nga xam ne ñii violence rek moo leen tax a jóg mais yoon aussi dafa war a dal ki nga xam ne kii violence rek la nar a utiliser donc même justice bi euh, defe naa soo amee en tout cas cas yu yu yu mel noon mais dafa war a sanctionner dafa war a sanction exemplaire ku ku ku ku ku violer euh, xale bu ndaw euh, ku am amul cinq ans six ans wala ku am amul dix-huit ans wala mineur de manière générale mais dañ la war a punir dix ans ou plus parce que du du viole bi rek mooy problème bi saa à que da ngay yàq dundu nit ki toute sa vie daf koy topp mais loolu décision de justice dafa war a correspondre de gravité situation bi parce que quand kenn amul sañ-sañ euh, yàq vie euh, dund dundu dundu nit ki mais ku rey kii aussi c'est la même chose c'est que la justice elle waruñu caaxaane euh, ku rey ah de kooku amatul place de société bi ah dañ ko war a tëj Euh, lu ñu ko war a euh, tëj euh, defe naa daal yoon aussi am na am na lu mu mën a dindi mun a mën a yokk pour nit ñu gën a am conscience que violence baaxul et que justice bi dafa war a taxaw pour pour protéger bañ a nekk nag justice ñu am parce que loolu lay gën a nuroo boo amee affaire xaalis loolu la ñuy coow ci justice bi ñu traité ko ku nekk am dara mais bu dee pauvre yi bon justice à la limite duñu leen Euh, duñu leen dégg ou en tout cas nuñ koy traité day yéex euh, donc justice aussi am na place ci crise bi au moins mën na rassurer ñi nga xam ne dañu faible mais ñi nga xam ne dañu tooñ ñu delloo leen ci ci yoon ba su ñu mën a leen juger condamné leen et def leen ci ci prison ñooñu amatuñu place ci société bi